aw li euh, yaay booy bi nga déggee mbir mi euh, nan la la def ah tiit rek ak jàq ak jaaxle ak mbetteel noonu la ma def tiit jàq mbetteel noonu la ma def lu ma séentu woon lu ma géntul lu ma bett euh, bis boobu ndax déggante nga ak Aziz Dabala am na ñetti fan déggante am naa trois jours déggante ak moom déggante wuñu ma ne xale yi aji Touba bi mu ngi ñëw am ñetti fay gi déggante ma ak moom te Touba bu doon préparé dem Touba rek daf may wax ak fu mu mënti dem daf may tàggu fu mu mënti nekk nag su demee dina àgg naa su naa ñibbisi naa ñetti fan la bi ak Touba ñëw na dégguma Aziz Aziz nekku si jàmm suñ ko reyoo rek nañ ko ay problème boppam ma ko déedéet noonu la. noonu laa dégg ñetti fan daal déggante ma ak moom ma moom de. mais moom moom ci ginnaaw ñetti fan yooyu ndax euh, daan nga toog bis bu set ngeen xam ni daan nga déggante ak moom ndax bis bu set daan ngeen déggante. chaque jour waa trois jours yooyu nga xam ne rek mooy ma tegaloo ci laa ko ci laa déggul ak moom ci laa wax wax ko xale yi te ni intervenir nag ci ni nutul nabu lay ni woo na ko jotu ko dem ci dem na ci appartement sama doom bi nekk ci biir néeg bi Aïda woo na ko jotu ko waaw sa benn frère bi bu ko ci appartement woo na ko jotu ko waaw noonu la. moom mu woo ko jotu ko. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ko woo doo ko jot Nabou Leye daal moom moo dem ci appartement ba ba risqué mu ne Aziz daal wala muy génn fii dina xam ci ne Aziz nekk waaw du jóg bouger fii te xam ci ne Aziz nekk waaw moom Nabou waaw moom moo tax ñu am ci renseignement sax. du fii te amul fee lu xam ci Aziz mu ngi ci dund wala mu ngi ci dee day daaj kër gi ñu xool ba xam Aziz mu ngi fi wala nekku fi waaw. mais ci biir ñetti fan yooyu nga xam ni toog nga déggoo ko ndax booba déggante nga ak Nabou Leye pour woo ko ci ñetti fan yooyu pour woo Nabou lay comme que moom xaritu benn bakkan la woon ci lu ñu wax. nabu Leye moom moo oote moom moo sama doom bi moo woo sama doom bi ni ko maa ngi woo Aziz jotu ko maa ngi koy ma ko maa ngi taxaw ci buntu këram léegi du ma bougé fii te xamul ci lu Aziz nekk danaa daj kër gi ñu xool ko ba xam léegi ba ñu koy daj danañ wax ni nag bokk ak moom ñoo taxaw léegi ñu woo sama doom bi mu jógee Kër Massar ñu wéy woo kenn ki mu jógee fii dem ak beneen magam bi ki jógee Kër Massar sax moo njëkk foofu waaw bi ñu demee nag fekk ñu fekk ñu daj ko. waaw la. mais ci xibaar yi ñu jot a taataan euh, dañoo dégg ñu ni bi nga bi nga xamee ni yéen a ngi wër Aziz ngeen am jaaxle ci moom euh, am na euh, kii la di nabu lay di xarit bi moom bi mu dafa dafa woo magam daal di koy wax ni ko est-ce que duñu dem ca appartement ba. dem na moom Nabou moo fa jiitu. jiitu. Ah, mais dañuy dañuy wax ñu ni. Euh, bi mu wooyee mag ji ni ko est-ce que duñu dem ci apartement xool ko mag ji dañu ko est-ce que yow doo dem ndax xëy na moom mag ji magam bi xelam demu demu demu demutoon ci apartement bi mais après moom mu insister mu mujj ànd ak mag ji daal di dem ñu daal di wax ni bi ñu ñëwee ba ci apartement bi bi ñu ñëw daal di daj daj bu woo menuisier bi daj bunt bi pour dugg xool mais foofu dañuy wax ñu ni nabu lay moom moo wax mag ji ni ko comme que yow yaay mbokkam njëkk la dugg. amul ni nañ wax loo xam ni logique na mbaa jub na amul nabu moo dem ci appartement bi moom mooy woote sama doom bi ko woo ni ko ak maa ngi fii ci buntu appartement Aziz maa ngi ko woo naa ko jotuma ko message naa ko jotuma ko te du ba génn jóge fii nag te xama ci lu mu nekk dañuy daaj ji ne kër gi am nabu moo jox information mais ñun joxuñu ko information. Ah, nabu lay moom moo leen jox information. moo jox information mhm. waaw accusé ko. waxuñu ko dara ndax ma as bi ñu xale la ñu ànd ba tey jii mhm. dara mosul ñaaw waaye moom moo joxe information mhm. waaw jox moom moo woo sama waa kër ñi mhm. waaw. ci biir loolu it doon nañ wax ñu ni euh, nabu lay bis boobu ànd na ak moom ñu daal di demoon benn cant ba ci biir loolu sax bi ñu bi nabu xaar na ko fa lu mat fanweeri minute bi cant gi jeexee ñoom ànd nañ Nabou déposé ko ci buntu déposé ko ci buntu këram. loolu tamit ñu ngi koy euh, wax ci xibaar yi ndax loolu lu wér la. loolu moom mag laa ndax dafa ba xale ma gu jëma laa maa weex tàll ak béjjaaw du ma xale. tent googu ñu bii asi euh, décédé nii na nga koy doo ko yëg ñoo ngeen ci amee information noonu ci amee information dégg mu nag cant ga nañ ci am. ànd nag Nabou Leye bagaar na fa nañ ci am bépp bagaar yi dégg naa Nabou Leye moo ko yóbbu ci oto yóbbu ko waaw te dégg naa cant ga itam moom fay dem. moom bëggul woon dem Nabou Leye mën a xam ne bëggul dem xale yi ñuy ñuy accusé ñoom ñoo fa wax Nabou Leye pour na Aziz dem comme Aziz ak Nabou benn lañu nag mu ànd Nabou dem loolu la ñoom ñoo ànd dem mais ñun cant gi xamuñu ci dara dara dara bagaa bi ah léegi-léegi lañ koy doog dégg loolu moom ñu ngi koy doog a dégg ñun waaw xamuñu ci dara xamuñu ci dara. mais euh, ndax euh, nabu moomu ak nabu lay moomu ak Aziz Dabala ndax seen diggante li mu nekkoon diggante bu ratax ratax ndax des fois daan ngeen ci gis ay ñagas ñagas ñoom ñaar seen seen seen diggante ñuy ànd tey suba ñu kii. Aziz daal mooy mooy nabu nabu mooy Aziz Aziz mooy nabu nabu mooy Aziz bu nekkee fi ba guddi war a ñibbi sax daan xaaral ma woo nabu nabu bu feebaree moom moo ko toggal. funti ne mën dem ñoo ñoo ànd yàlla daal moo leen boole moo leen boole woon moo leen boole ba léegi nag ñoom ñaar as mu jógee ne tuwaay moo leen boole ba tey waaw. léegi ci biir euh, gone googu nga xam ni moom la ñuy wax euh, Boy Waly euh, nga xam ni bis bi ñuy faat kile di Aziz Dabala moom it ci lañ ko faat faataale léegi dañ doon wax ñu ni jarbaatam la. ñii di wax nii dafa doon dafa doon ñëw di fa fréquenté eh, di naan si ataaye loolu loolu lan ngañ ci mën a wax eh, yaay booy soxna Oumy Mbaye Waly moom xale la xale bu ndaw la bu amee vingt ans ci la yem xam naa yàlla mu xiir ci Aziz rek mu jógee ci mu nekk ñëpp ñibis ñibis si Aziz du jarwaat nu bokkuñu dara waa ñoo bokk yàlla ak yonent ba ndax dudit la waa doom la waaye xam naa yàlla mu xiir ci Aziz rek yàggu ci Aziz yàggu fa de waaw yaru ko yaru ko nekku jàmbaatam tam waa ñoo bokk yàlla ak yonentam bu tedd bi waaye yaru ko waaw euh, ki nga xam ni moom moo nekk nabu lay nga xam ni wax nga ko ci sa biir yi wax sànq maanaam man nga ni woon Aziz mooy nabu nabu mooy Aziz loolu nga jot a wax sànq ci kàddu yi maanaam mooy ñoom ñaar kenn mënu leen a woon a ràññatle benn la ñu woon mais tey su fekkee ni yoon am na ay soupçon maanaam. am xel ñaar ci nabu lay moomu nga xam ni benn la woon ci Aziz Aziz di benn ci moom tey mu jàpp ko ba téye ko ba léegi heure bii ñuy wax ak yéen euh, sànq sax lañ ko def mandat de euh, lañ ko lañ ko def mandat de dépôt moom ak ñi nga xam ni moom la moom la moom la àndaloon ci ci ci mbir mi ci li jàpp ba nga xam ni yóbbu nañ leen ca camp pénal mais loolu nga xam ni tey justice bi def na ko nga xam ni justice bi am nañ njortu ci nii moom laale na ci. mbir moomu yow ak li nga wax léegi ni ñoom ñaar benn lan woon yaay booy soxna Oumy mbay loolu nan nga ko nan nga ko déggee ak nan nga ko gisee. ah yoon dafa jàng liggéeyam yow da ngaa jàng sa liggéey waa ñu dañoo jàng togg ak yàq tin bi war naa xam ne koy sóor ak lu dul sóor waaw moom nabu benn lañu woon kenn mënu leen séparé waaw li mu wax ak séeréer bi sax du ko wax ak nabu nabu ak Aziz benn la. du abi as am programme bu ñu am lu ñu tëgg ak lu mënti def ñu ngi si nabu waaw def ko comme ku wokk ndey ak baay mhm. yaa ngi dégg mhm. ah am na ay yoon def liggéeyam rek yoon na def liggéeyam ñoom dofuñu xam nañu liggéey ñu c'est la même chose ñu ngi toog di mhm. ñu ngi toog di ndax jàppoon nga ni bés dana ñëw ak nabu nu mu mel ci sa njaboot mu mën a def lii sa doom déedéet déedéet lii surprise la di surprise la jàngaat la itam mais lii moo neex yàlla lii moo neex yàlla. kon jërëjëf euh, yaay booy xam naa dañuy bañ nga sori bu baax ci wax ji nga gën a euh, di tuur ay xewal euh, ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yi nga xam ni def nga ko mu doon nag mbir moo xamante ni nii askan wépp la metti askanu Sénégal wépp ñoo ngi la koy jaalewaat bu baax a baax di ñaan euh, suuf woyof ci kawam yaay booy jërëjëf soxna Oumy bay kon euh, lan ban. Euh, mhm. Mhm. yaay booy.